bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin la hawla wala quwata illa billahi alil azim barke borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki julit yi bokki taalibe yi su ngeen jàkkaarloo waatee ak jataay bii dangeen xam ne daayira bu mag boobu di xudaamul xadim di soldaari Serigne Touba yi nga xam ne ñooy liggéeyal sëriñ tubaa ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa ci sàmm ndono li ci ni ko jàmbaar ji di waxe di xamsatul xadim mooy sàmm ak wattu mooy li nga xam ne mooy sunu warteef ci moom moo tax ñu toog ci jataay bii ngir yëkkati ay kàddu kàddu yi nag ñu di ci jiital ñaanal sëriñ tubaa Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi son borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram ñaanal mbooleem njabootuk sëriñ tubaa gépp ak njabootuk lislaam gépp ñu toog fii ci kanam sëriñ Amsatu fegoo ak sëriñ Basiru moom sëriñ Cheikh Coro moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di jëwriñi daayira Xuddaamul Xadim ci ndigalu sëriñ Amsatu waaye feggoo ak sëriñ Falilu Fall moom sëriñ Aliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine euh, moomit muy jëwriñ di secrétaire bu Xuddaamul Xadim ñu fegoo ak sëriñ Modou Gueye moom sëriñ Bassirou Gueye ñëpp gën a xam sëriñ Bassirou Gueye wurkuñ doonoon ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Bassirou daan liggéeyal yàlla ci toolu sëriñ Touba Xaadim Rasoul bi ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yu jëm ci wàllu social boo xam ne xuddaamul xadim dana ko def jëme ko ci mboolem xeet wi jëme ko ci mboolem taalibe sëriñ Touba yi. ci nii nga xam ne ni la sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha soññee ci xam-xam tey wax ne lépp lu jëm kanam lu nar a jëm kanam xam-xam moo koy fondationné te sëriñ tubaa waxoon na sama jihaad ji gën a mag ci xam-xam ak ragal yàlla laa koy teg. looloo tax Xudaamul Xadim fas yéene jëf jëf social mu jëm ci wàllu njàng mi loolu nag damay bàyyee sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi. ci ndigalu sëriñ Amsatu mu leeral ñu social boobu nan la ak naka lañ koy defee kon sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa Kër Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu sell boobu hmm, tey jii nag ñoo ngi fii ci kër sëriñ Xamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamee ni ay. jëfam ak ay yëngutoom ak i dalam lépp Cheikhul Khadim la ñu daje fi nag euh, euh, ci solos daaira bi ku mag bi nga xamee ni moo tudd Xuddaamul Xaddiim euh, di nekk soldaari Cheikhul Xaddiim yi daaira boobu nag kenn ku ne xam na ko ci ab taxawaayam ba ci ci Euh, journée xasida bu mujj bii rek kenn ku ne gis na ay taxawaayam euh, di daayira boo xam ne li ko tax a jóg nag mooy sàmm euh, ak wattu ak saytu li nga xamee ne mooy nolol sëriñ bi mm, daayira boobu nag li ko composé dafa bari lool am na wàllu sécurité comme ni nga ko gisee waaye itam am na wàllu culture mooy saxaafa ak yeneen ak yeneen domaines yu baree bari bari ci biir tey jii nag domaine bi ñu indi nag mooy euh, domaine social bi euh, ci ni ma ko waxee sëñ sa ci ak farloom ak taxawaayam ak njàmbaaram euh, ci le ñu indil nag tey ab yóbbal ak sërice bu am solo boo xamee ni dafa jëm ci mboolem waa Kër Sëñ Tuubaa yëpp waaye jëm ci jànkati xam-xam yëpp muy ay bourse yoo xamee ni dañ ko ko baaxe jaare ko ci xuddaamul xaddiim ngir mu war koo Euh, laa biire doomu aadama yi euh, ci képp koo xamee ni euh, bëgg na yeggale am njàngam bëgg na formation ak lépp loo xamee ni rek jëm na ci wàllu defar nit ki ba nga xamee ni même niveau bu mën a am moo xam BFEM la moo xam bag la moo xam itam lu gën a sori loolu moo xam plus un plus deux wala bu mën a am rek incha allah am na ay formation yu takk yu bari ci ay école yu waree bari incha allah nga xamee ni am nañ ci euh, euh, accord ak ñoom euh, ngir mën a liggéeyandoo ak ñoom kon nag loolu moom mooy solo si nga xamee ni Eh, eh, tey moom la sëñ Xamsatu Mbàkke indi eh, di di di sëri ci nag mu am solo di information bu am solo képp koo xamee ne bëgg na xam-xam itam xam-xam fii Touba ak dëkkub Touba kenn ku ne xam-xam ci diggante sëñ bi ak xam-xam kenn ku ne xam ne fi mu toll ba tax na itam Xuddaamul Xadim jóg jéego boobu ngir itam woo ànd ak képp koo xamee ni jëm na ci wàllu xam-xam képp koo xamee ni bëgg naa jàppale xale yi képp koo xam bëgg naa dimbali ñëpp ngir ñu mën a dem incha allah parce que am réew yi itam bala ma mën a dox mbaa ñi tabax ci xam-xam lañ koy tabaxee euh, ci loo tax nag sañ am sa daal di jóg itam dox doxinu am solo woowu dikk ñu bourse yu am solo yii nag am na ay détails yu bare bari na xaj na du xaj ci jotaay bi waaye dinaa jox Serigne Fallou Fall Mbawor bu ko defee moom mu leeral jotaay yooyu képp koo xam tam bëgg na ci am ay renseignement ah incha allah dina xool écran bi am na ay numéro yu affiché bu contacter foofu incha allah dina ci am ay information yu leer naññ. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu euh, kon ginnaaw bi ñu dégloo kàddu yi euh, sëriñ Fallou Galass la euh, mu ubbil euh, sëriñ Bass Thioro bi nga xam ni moom la sëriñ Hamsatul Xadim dénk association bi nga xam ne mooy Xudaamul Xadim muy saytu ci wàllu gu bare bari ci li ñeel yoonu murit Euh, ndax ku daam xam ngeen ni bañ ko saseeg léegi yaakaar naa ni yàgg naa ndax léegi mu xaw a jege fukki at euh, bañ koy sasit nosoon na ci nag lu bëree bëri maanaam volet culturel social euh, sécurité maanaam lépp lépp lépp rek loo xam ne yaakaar nañ ni Touba war na ko yittewoo te ñu war koo mën a mënal suñu bopp amal ko suñu bopp loola fàggandiku waale nañ ko ci ah naka noonu nag kon ci la ñu sëriñ bi xamale ni Euh, ci ay euh, yëngutu yu mu doon yëngutu am na ay écoles yoo xam ni euh, maye nañ lu toll ci deux cent bourses yoo xam ni ci wàllu gu baree baree bari la danañ leen ko limal yoo xam ni képp ku ne ku déglu rek gis ci loo xam ni yaakaar ni dana la ñor da nga mën a woote ci numéro yi nga xam ni moom mooy daw nii ci écran bi bu ko defee nga woote ca ñu mën laa euh, jox information yi nga xam ni mooy mooy gën a détaillé euh, bu fekkee gis na la bu fekkee ñor na la bu fekkee ne intéressé na la euh, ñu ñu bind la waaw comme nag ni ko sëñ bi waxee maanaam formation bi inscription rek ngay fay waaw rek ngay fay waaye inscription bee tam montant bi mi ngi dépendre ci li nga tànn formation bi nga xam ne moom nga tànn. Euh, formation bet mi ngi tàmbalee ci benn at ñaari at ba ci euh, ñetti at lay lay am waaw bis njëkk mooy euh, mu ngi tudd éco mode plus ñoom foofu dañ fa jàngale coupe couture stylisme modélisme design accessoire de mode choix de couleur plomberie ba ca topp mooy IG maanaam institut de gestion et d'informatique du transport et de la logistique Euh, boobu dinañ fa jàngalee transport logistique transit douane marketing ak communication management de projet banque finance assurance maintenance et réseau informatique de gestion gestion de projet comptabilité commerce international gestion des ressources humaines bureautique vote Excel Access Internet euh, dañ fa def it formation entrepreneuriat et gestion management des affaires génie informatique assistant de direction ak marketing bi ci topp di eh, l'institut européen eh, l'institut européen management school eh, moom ñu ngi fay jàngale génie civil électrotechnique électromécanique réseau informatique sage-femme d'État infirmier d'État délégué médical assistant infirmier vendeur en pharmacie commerce international bi ci topp mooy Sénégal Business School and Consulting boobu euh, danañ fa jàngale euh, banque ak finance ak assurance comptabilité ak gestion gestion de ressources humaines informatique de gestion management des affaires marketing et communication commerce international transit douane gestion touristique et hôtelière restauration accueil gestion immobilière bi ci topp mi ngi euh, tudd haute école de management et d'informatique euh, nekk euh, moom itam yi ñu lim yëpp Dakar la ñu nekk waaw ah, moom dañ fa jàngalee transport ak logistique gestion des ressources humaines comptabilité ak gestion banque finance assurance journalisme ak communication marketing ak communication assistant de direction commerce international hôtellerie restauration délégation médicale vendeur en pharmacie ak technique de caisse bi ci des mi ngi tudd G2C4 euh, groupe consultance conseil formation hautes études institut supérieur de gestion et de commerce danañ fa jàngale gestion des organisations comptabilité ak gestion gestion des ressources humaines management AGE marketing communication communication gestion de projet banque finance transit done ak euh, logistique bi ci topp mi ngi tudd COSEF COSEFOR collectif sénégalais pour la formation professionnelle euh, danañ fa jàngale euh, def infirmier d'état sage femme d'état boobu niveau bac plus trois la un plus plus niveau bac la donc formation bi trois ans lay lay lay durer bi ci topp mooy assistant infirmier d'état moom niveau BFM deux ans technicien supérieur en analyse biologique maanaam euh, maanaam technicien de laboratoire infirmier bloc opératoire moom boobu niveau BFM infirmier breveté euh, euh, moom itam aide soignant infirmier urgentiste urgentiste auxiliaire de puériculture ambulancier délégué médical vendeur en pharmacie gestion de pharmacie secrétariat bureautique assistance de direction secrétariat médical communication marketing marketing digital journalisme gestion hôtellerie restauration tourisme et loisirs banque finance assurance informatique design et développement web infographie et montage vidéo comptabilité de gestion des entreprises génie civil géomatique commerce international transport logistique management de la logistique globale agro-business management des sciences juridiques et relations internationales métier du pétrole et du gaz transit déclarant en douane secrétariat bureautique secrétariat médical caissier comptable comptabilité birotique maintenance informatique secrétariat comptabilité informatique infographie montage vidéo hôtellerie restauration bâtiment électrotechnique mécanique auto bi ci topp mi ngi tudd euh, Unipro univers professionnel alternance école entreprise commerce international transport logistique marketing et stratégie management des affaires sciences de gestion gestion des projets monnaie banque finance entrepreneuriat et gestion des PME hygiène qualité sécurité et environnement génie informatique génie civil gestion des ressources euh, ressources humaines bi ci topp mi ngi tudd IFMC institut de formation en marketing et communication marketing communication digitale management journalisme infographie et multimédia commerce gestion des entreprises euh, diplôme d'études professionnelles euh, DEP ci audiovisuel art euh, de d euh, tout d ak 3D diplôme technique supérieur DTS ci audiovisuel création graphique licence ci audiovisuel option photographe caméra photographie caméra audiovisuel euh, option montage et post-production audiovisuel gestion de production audiovisuel option son et musique design graphique option communication et média numérique euh, web design moom mooy yi nga xam ni euh, amoon nañ ko Euh, ci lu toll 200 bourses yoo xam ni euh, képp koo xam ne aajowoo nga ci benn euh, comme ni ñu ko waxoon léegi mën ngaa woote ci numéro yi nga xam ni moom moo nekk en sur impression di daw ci écran bi. kon yooyu nag moom mooy formation yi nga xam ni école yi ñu koy defee Dakar la nekk comme nu ñu leen ko waxoon sànq rek ci njalbeen gi. maanaam kenn du ci fay dara inscription ngay fay te inscription bi aussi danañ la ko yombalal du caagi ne da nga koy fay rek ci benn solution. mën ngaa joxe moitié wala nga joxe quart wala noo ko mën di fay daal li ci am solo mooy balaa at mee mat na na nga fexe ba euh, inscription bi euh, egg waaw ah, bu loolu jàllee am na ci yeneen formation yoo xam ni euh, moom incha allah Touba ñëw ñu fay def Touba la ñuy ñëw ci wàllu gu ne nag dañ def formation ci wàllu ñuy defar ay saabu ci wàllu diw wàllu céré céréale locale maanaam lépp loo xam ne daal jigéen ñi danañ ko soxlawoo Euh, ngir man ci euh, ci kër yi walla itam sax ñu koy def euh, di si yëngatu ci wàllu activité commerciale bépp type de formation incha allah moom it danañ ko def waaw dafa xaw a bari waaye lépp lu jëm ci daal transformation waaw wax naa ko léegi saabu diw mm, conserve maanaam defal ay confiture ah, wala conserver ay produits ba du yàqu ah, walla lu mel ne meew mii ñu pasteuriser ko ah wala defar sànqal defar mboq defar euh, lépp lu jëm ci loolu moom itam xam naa ku mu intéressé rek incha allah boo wootee nañ la ci gën jox ay ay ay ay ay ay ay détails ah, bu fekkee ne itam euh, am nga ci foo xam ne bëgg yaakaar nga ni dana la intéressé moom it incha allah boo bëggee dañ la bind. waaw kon daal loolu mooy li nga xam ni moom moom la ñu euh, bëggoon a jottali tey di leen gërëm bu baax di sant salaamaaleykum wa rahmatullah